yasaay aouzu billahi min al sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim xalifa rappeur la yow alors Youssou Ndour laa mu ñu askanu Sénégal xoola moom moo nekk di wax nii ak yow yaa ngi dégg yow xoola seytaane nga mii kër nga fenkat nga naafeq nga ràmbaaj nga tiit nga bëgg nga soxor nga nay nga yaa ngi dégg dëgg woo waa may la sumuwaay mécréant trafiquant de personnalité may la sumuwaay fii nga génnoon naan xaw ma da ngay woy naan xaw ma da ngay jéem a gaaral Abdoulaye Wade naan xaw ma da joxe ay conseils di woy naan ay xawma ay jaay doole baaxul te pourtant tey si Sall Macky bi nga bokk Macky Sall nga àndal may la sumuwaay mu nekk si dëkk bi di def lu ko neex la moo tax sumuwaay woyaloo Macky Sall ne ko jaay doole baaxul la moo tax loo ko ne ko saawaay xoola bañ sa askan di jël koom-koomu réew mi yëpp di ko jox tubaab yi baaxul la moo tax wooyeloo ko ne ko saa waay xolo pétrole bi ak gaz bi ak ressources naturelles sénégalaises yi mu teg ko ci yoon wala boog mais yaa ngi topp si ginnaaw may la sum waay xolo di martaatam sa propre intérêt parce que lan buggoo fay impôt te fay impôt Sénégal may la sum waay bu ñu dajale woon may la sum waay yi nga ameel sénégalais yi impôt yi nga war a fay Sénégal xëy na sax boo ko fayee fa xolo fa ngay jaar yow xolo da doo di xaalis yaa ngi dégg noonu la demee ko waa xam nañ leen bu baax may la sum baa may dee ngay génn naan ay xaw ma ay nay yaa gën a nay fii yaa gën a bëgg fii yaa gën a tiit fii dee moo la dese bàyyil way way nga lépp amatoo looy way bàyyil te yàlla tax nga dem nga jaamu ji yàlla yaa ngi dégg noonu la demee quoi may la sum waay naan ay xaw ma ay luxus ñun duñu ay franc-maçon ñun duñu ay dëmm duñu ay rab duñu ay jinne jànguñu sax luxus voilà xëy na yéen ñi bokk ci salmaki bi saa waay yéen a xam ay luxus may la sum waay noonu la demee quoi dëkk bi ma ne la sumb waaye dafa metti si sénégalais yëpp ngay génn di jaxase nit yi di jaxase ma la sumb waaye jëkkër jabar di jaxase ànd yi ma la sumb waaye yow bàyyi saa waay yow gënoo taalibaay góor yàlla yi gënoo nekk jantal góor yàlla yi bàyyi saa waay yaa ngi dégg kon li ngay jéem a xànju nii di jéem gi yéen a yàq dëkk bi dëkk bi saawaay xoolal dafa metti may la sumbaay dëkk bi amul xaalis ngeen jël koom-koomu réew mi yëpp jox ko tubaab yi li des ngeen séddale ko seddoo ko seen biir yi noonu la demee quoi di la wax na xoola sa album jënduñu ko te duñ ko jënd te xoola dégluwuñ ko noonu la demee te duñ ko déglu te yow sa xoola bàyyi nañ la déglu xalifa rappeur la yow dox muy gaaw